maqaama asira dama la waxoon ne la fukaahiya lay do dama la waxoon ne la fukaahiya lay do bii nag lool la dëkk bii di rahbatu Malik dafa am fi nekk te de ku kàccoore kàccoore su ko defee ci la ko Abu Zaydin fexeele ba kump ànd ak doom ji ñu kumpuloo mel ni dañoo kalaame hante ba mu jox leen alal ñi nax ko dem xeeti fexeel yaag yooyu la lay jàngal mu ne xakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaaris mooy nettali xaal mu ne xatafa hooxoon na daaxee sawqi aji hoote jaamum cofeel la bu yee ci man ilaa raxbati malikin jëm ci raxbatu malik ibni tawqin kay doomi taw mu ne nimse dafa taxoon ma ne maa ngi dem ci dëkk boobu ñuy wax raxbatu malik fa labbaytuhoo ma hëy ji ko moom cofeel mum tatiyan mbiroom ma daa ji war simillatan gélém gu gaaw wu muntadiyan te daa ji bocci asmatan dogu musmaillatan gu daa ji gaaw wala gu daa ji ñaw ba mu ko defee ma ne dama fay dem tax maa wut waruwaay wu baax a baax dogu ci dem gi lool nag ma daal de wax sama waruwaay dàq dem dem bu gaaw xal bi fala baytoo ma hëy ko mumtatiyan bi noonu mu daa ji was fi gaaw wa muntadiyan te daa ji bocc asmatan dogu musmailatan gu daa ji gaaw falamma alqaytu ba ma sànnee biha ca rahbatu malik almarasi teeruwaay yi ba ma demee ba àgg farak ba teer wa sadatu te ma takk amras yi samay lankaar alamras mooy buum yooyu ñii xeewee gaal suñ bëggee mu taxaw mooy ba ma demee ba àgg ba xam ne dal naa wa barastu te ma génn minal xammaam yi tukkee ci xammaam bi ba da tabtiraat yi ci gannaaw wat suma bopp xam ne dindi naa ci man coono yu dox dem naa sangu wat naa sama kawar placé naa léegi xanaa def visite ci dëkk bi rek moo def mu ne bi loolu amee raayatu gis naa xudaa man ak ak gune dama gis ak gune goo xam ne ubri na sotteef na ko fi xaalabil jamaal ci moolu waayu taa gone goo xam ne xam naa daal na ko yàlla bindee moom e eh, ko rafet la ubri xasa tees na ko fii xaala bil jamaal ci moolu waayu taar wóolu bi sa texoo dees ko minal xusni ci taar xullatal kamaal ko dayal mag moom daal nit ku taaru la ak boos na foo ko xool ci jëmmam rek da nit ku rafet la waqadianta laqa haju na seyxun ak ak góor birut nihi ci labitu mbubam yeddaxee de xoote ne am na woon naka gune gi fataka rey na bi hi doomam genn góor a ngi téye ci mbum da ko ñoddi wax ne xale bi dafa rey doomam genn góor a ngi téye yére wax ne xale bi dafa rey doomam wal xulaam te gune gi yum kiro mu ngi weddi xer fatahoo xam góor gi wayu biru te muy màggal xir fatahoo tuumaam gure gi de wax ne góor gii fekkuñ dara mosuma koo dégg mosuma koo gis tey laa ko mos a gis ma wax ñaaw na de te ay tuuma rek la góor gi kii lim ma def dafa rey doom gune gi ne du dëgg kii tey leen dara xamante xam ngeen lu bon la may wax wal xulaamu te gune gi yunkiru dana mu weddi xer fa tawoo xam góor gi mu ne wayu mbiru te mu ngi màggal xirfatoo tuumaam mu ne li ñu wax ko itam tuuma la wal xisaamu xuloo bi baynahuma ci seen diggante mutatayiru saraa aji ta aji naaw ci njar ment la mu ne ñu ngi xuloo xuloo bu tàng ci diggante góor gi gune gi la daray nit xanaa yow boo màggee ku jógut teew lii nit dana ko soxatee am loolu la góor gi de wa wala gune gi naan yow mi magam fenkat kay yow ñëpp la tane te xuloo yooyu lañ nekk rek te xuloo yooyu lañ nekk wasihaamu rajay loobi alayhima ci ñoom ñaar yéen moo dana mu boole bay na xiyaar diggante tànnee bi wal asraari ak ndóol yi ñëpp mu jigéen da amul kilifa amul kuñ xelif amul ku baax amul ku des gannaaw ñëpp génn da leen ci biir mbedd mi ñu ngi waxante loo xam ne ilaa an tarada yaa ba ñu gën a baada sitaati ladadi ci gannaaw jéggi dayoo tataxuloo bi tanafuri ci kalameante ila waalil baladi jëm ci waali dëkk ba bañ demee ba wax ji tàng ba wax ji tàng góor gi ne ko dama la yóbbu fa mbaxana doonee benn mooy mu ne nañ ko yóbbu fa mbaxana doonee benn nañ kalameante ci xaar yi wa kaanate nekkoon na moom waali dëkk bi mi man de koo xam ne yu sën nu def na ko tuumaale e, bila naati ci mbir yu suufe yi mu ne te wali ji xanaa fa ne ci barabam bi rek waaye sax mérito wu ko parce que nit ku sew la dañ koy wax yenn yi wa kaana nekkoon na moom wali ji mi man de ku xam ne e, yu sën nu def na ko tuumaale e, bila naati ci mbir yu suufe yi parce que daal nit ku sew la dañ wax yenn yi wa yuxallibu te muy notal xubbal banina sopp gune yu góor yi xalal banaati ci gune yu jigéen men daal feex a yu góor yi da am nu muy def ak ñoom sax moo dem ci jigéen ñi takk ci soxna de dund ak moom xaade ji daal noonu la mel Abu Seyni nag xam na lool gune gi itam xam na lool ñu ne fa la ñoo fa asraha ñu gaaw ñoom ñaar ilaa nadwatihi jëm ci pincam waalidi ku ci ne wane ne maa gën a sawar ci yoon yi ñu bi ka sulayk mel ni sulayk fi adwatihi ci dawam mel ni sulayku muy daw sulayku kenn la ci ñeent ñi dàqaa daw ci arab yi sulaykum nu salkata defe naa moom la ñuy wala sulayku la hmm, sulaykum nu su su su sula sulay comme sulaka sulaka sulakati sulaka nga ak sanfara ak Amru bnu Umayyata mu bokk ci Banu Damra sulay comme sulaka kenn ku baax a mu ne comme kooku la dégg wa falamma hadaraahu falamma hadaraahu ba ñu teewalee waali ji ba ci mahkama ba jaddada heesal na aseyxu góor gi daa waaw xooteem ah góor gannaaw moom mooy wax lam fa yóbboo waaj wax ne dafa rey doomam wastanaam mu sakku xaat waawu ndimbalal waali ji ne ko xam nga ne tooñ yu gën a diis lii xamut dañ defee samp rek ku nekk ndimbalal kuñ tooñ kon lii li ci yoon sédd da nga ma koo jox yaa ne am yoon lii la góor gi wax fa tantaqa mu tuddloo moom waali ji alxulaama gune gi waali ji ko xale bi kon waxal ndax gannaaw dañ laa kalaami ki fi indi wax na lim la fi indee yow yaa de wax luñ yow yaa de wax luñ xamee ne set nga wala nga wax luñ xamee ne yoon yëg na waxat ko te ne woo te mbirum gune ko bi maxaasini xurbatihi ci taari le weexaayu xar kanamam wa tarra te mu tojee xaqalawoo xelam bi tasifi turratihi ci rangale kororo xaadiji ne gune waxal te booba xaadiji xam naa taara gune jël na xel mi ba daanaka xawut a xam sax li muy liggéey diggante cëlmaay lim leeree ak korora saxukaay jëbi fa qaala gune gi ne ko innaha naka daawa seyxi afikatu afaakin fene fen kat rek la ala safaakin ci ku duumu tuura koon deret waadiyatu moxtaalin tey tuumaay aji fexe ala man ci ku xam ne lay sa déet moom bi moxtaalin mu daa ji mu ne feni kese rek reyalu ma ko dara waxul benn dëkk waxul benn dëkk loolu la li mu wax ni dara du ci dëkk innaha naka waatee góor gi daxoo seexi afikatu afaakin feni fenkat la ala xayri safaakin ci ku duumu tóoraakoon dara waadiyatu moxtaalin tey tuumaay aji fexe ala man ci ku xam ne lay sa dégg moom bi muxtaalin mu daa ci yow daal albayinatu ala almuddaay wal yaminu ala man ankar léegi borom daawa bi def na daawa almuddaa alayhi moom bañ na kon léegi kii muddaay bi na indi seede bu fa qaala dal di wax alwaali li seyxi waale ji wax góor gi nee ko waaw il sahida bu seedee lakk ñaar la xaddalaa ni ñaari way maanu mm-hmm. minal muslimina ci julin ñi mm-hmm. ñu àtteel la léegi sa danwaa bi soo teewalee ñaar ñu maanu mm-hmm. ñu doon julin ñi seede la yoon dana ko dëggal kon dañ la àtteel comme ku ñu rey wa illaa boo teewalu seede nag fa taw bi na nga mat lu melu jëm ale mi su fekkee amoon seede nag kon moom dafa giñ ne waxoo dëgg te def yoon loolu la ko loolu la ko wax fa inna woo gune gi la woo nërmal na sama doom xaas mu daa ji sori ci digg àll ba ko fekk rey ko fa waa faa te mu tuur dama woo deretam xaaliyan mbirum mu daal di suya foofu ñoom ñaar rek ñoo fa ne woon xam nga loo ko xamal moom xanaa du kadee boobu ñoom ñaar rek ñoo fa ne woon fa naa lii naka la maa ñaalee sahilun aji seede wala mu yëkkun te nekku sama ca foofu musaahidun aji fekke comme kenn fekke wu ko woon mënuma teewal seede waaye xaalis yi dafa duut nit ku réglé fi mu ne ndax rek taaral eh, gune gi lim jël ci xelam su ko dóoroon dana def enquête ci reyin wi demee buñ ko waxee reyin wi mu demee mu seet ndax lii reyeeg tay la wala reyeeg tafaar la su demee ba xam loolu daf di lay seede bu góor gi teewalee seede mu xam nu ko waxee teele waaye ba léegi moom xamul sax reyin wi demee dëgg dëgg dëgg dafa góor rek lay seede loolu li tax mooy xel mi muuru gi muuru muuru googu ci la ku góor gi di demee lu bon parce que nee na ko kenn newu fa woon man rek maa fa ne woon moom rek moom ñoom ñaar rek ñoo fa ne woon comme kenn fekke wu ko lu nit fekke wu nit muuru gu da seede seede bu baax nit muuru walakin li fi nekk wëlli nii méngale ma talqiina woo saxam alyamina ngiñ li yabina ngir na bir la kañi àlla ayas du ko ndax dana dëggal moom gune gi am yamin wala dana mu fenn waaye léegi man maa koy wax lu muy giñee su ko nangoo giñee ñi xam ne wax na dëgg su ko nangu wul a giñee nga xam ne dafay sax xam nga loolu lépp xaadir yi ñàkk gim ñàkk a sagoo rek la waaye ngiñ dafa am matériel boo xam ne moom la ñuy giñee pare kon nit warul fabriqué ngiñal boppam waaw waaw <laughs> xaadir yi ne ko fa xaar dañu wax xaadir yi la wax xaadir yi ne ko waaw ante yow almalik yaa ji moom di saalika loolu waaw yow mën ngaa seet lu la neex rek nga def fi sa njàqare al mutahali juraaji tax alal nekk ci sa doom alaali julaay bi alal naa sa doom jom dugg na la loolu amuñ ko fa xaaral daal di wax asayxu lil xulaam góor gi wax gune gi ci biir ngiñ li na xaadi ji ne nit ku sew la dafay tudd cër yi ci gune gi yooyu fu mu tudd rek xaadi ji xool ko su ko defee xaadi ji gën a gërëm mu gën ko mën a sëlmal rek <laughs> waaw <laughs> xaadi ji gën a xam na xale yi ni mel xam e e ne dundi e nit ku sew la parce que nag tudd cër yi rafet ci gune gi yëpp fu mu tudd rek xale yi xool ko rek subaa xale yi ci loolu moom dana mën a gën a gël dana gën a gëlam ba mu mën koy sëlmal ni mu ko bëggee rek fa qaal seyxu lil xulaam góor gi wax gune gi nee ko xul waxal ne wala di giñ naa ci buur bi nga xam ne zayana rafetalee na mu aljibaaha jëyi bi turari ci kooroo mm. mooy sax boojat mm. wala yoona mu rafetalee bët yi mm. bil xawari ci xawar xawar ci bët mooy li war a weex day weex tàll li war a ñuul itam ñuul mooy xawar ci bët mu def bët boo xamee melokaan boobu rafet wal xawaaji boobu mu rafetalee xéer yi bil bala ci doggent xam ne du jokkaloo wana baasi moom mu rafetale muy waay bil falaji ci jaalu yàlla sàkkal yàlla wal juhuuna mu rafetale mbati badi bi saqami ci lamsal mooy xool bu ndànke wal unuufa mu rafetale bakkan yi bi samami ci yëkkateku wal xuduuda mu rafetale lex yi bi laha bi ci tàkk-tàkkat mooy leer wasu xuura mu rafetale reew way bi sone bi ci sew ak bëñ wal banaana mu rafetale baaraam yi bi tara bi ci no ci nooy ci xëwu wal xusoora mu rafetale legg yi bil haye bi ci xoos waxal ne giñ naa ci yàlla mi jël cër yi da leen rafetale nii fu mu tudd rek wala jee xool giñ naa ci yàlla mi def lii ne inna nii man maa xataltu rayuma ibnaka sa doom sahwan ci jamaj wala hamdan du jaageen tey waxal ne dangay giñee lii wax na rayoo sama doom wala jaansu defuma xaamatahoo kaangam ximdan muy mat li sëy bi ñaar sama jaati nga wax ne caatu la ko jaati wa illaa su fekkee maa ko su fekkee man maa ko ba léegi rek ci xaalis yi la nekk xaramaa yal na sànni allahu yàlla jaf nii sama mbatam bët bin xamati ci naqadi gis suma bëri rafet le kon yal na naqadi gis yal na jiw bu naqadi dugg waxat bi mu sànni sama lex bin namati ci picc njàmbal su ko defee sama calmaay lu la tax li le yal na ci ak njëgas dugg ndeg feebaru njàmbal bu jaayam wa turrati mu sànni sama kororo bil jëlahi ci leel su ma saxuwaay toor bu jag bii soppeeku leel watal he mu sànni suma pelaxam tàndarma mooy su ma reew waaye su ma bëñ weex yi mu sànni ko bil balahi ci saaraan mooy xonq ak bëñ wa wardatii mu sànni sama warda mooy sama lex bi xonq mel ni warda bil bahaar yi ci bahaar mu kure wa miskani mu sànni sama xeñ a gémmiñ gu neex bil buxaari ci bañ a xeñ wa badri bu sànni sama cëlmaay li mel li mel ni weer bil mihaaqi ci gotteeku wa fiddati mu sànni sama xaalis mooy bayaat basarati yi waxayu deram bil itraaqi ci lakk wa suhaayee mu sànni sama jeeneer bi islaami ci lëndëm wa dawaati mu sànni sama daa bil aqlaami ci xalimba mooy yàlla na nit ñi def ak man liwaat waxal ne yaa ngi giñ ci mi def taar yi mm-hmm. ne reyu la sama doom bi mm-hmm. su fekkee yaa ko rey yàlla na lii daal mm-hmm. ne ko lii daal moom ngay giñee ma xam ne am nga dëgg waaw waaye leneen moom doo mën a may lii du ma daa ko fa qaala daal di wax alxulaam gune gi ne gune gi ne alistilaa naa jaaro bil baliyati ci musiba walal ilaa te du jàggin giñee bi haadihil aliyati ci ngiñ li lii moom ñu teg ma lu ne moo ma gën a ni ma giñee ko walil qiyaada tànn naa momatu lil qawadi jëm ci fayu walal xalifa te du jàggin giñee bi maa ci loo xam ne lam yelim giñee bi yi ñoom ahadun kenn loo xam ne kenn nit ma du koo giñee may ko giñee loolu nanguwuma ko su xeeboo ñu ne maa ko rey rey waa baa dal di bañ a sayxu góor gi illaa tajiyaahu ndaray góoxalam alyamina ngi alladi li nga xam ne ixtaraaha fent na ko waam xarate mu wexal la wa ñaal ko juraaha ay góoxam góor gi nag ngiñ lii mu fent mu ne fépp gune gi giñeewu ko moom du d'accord ne gune gi am na dëgg te gune gi wax ne moom giñeewu walam yesal dañut attalahiyatante baynahuma seen diggante yastaheru di tax kenn ku nekk nga yedd morom ma yow kay xam nga ne moom moo dëgg ni ko noon nga ñëwee gi yow kay yaa amu dëgg ni ko noon li nit ñi de giñee doy na loolu lañ nekk di waxatte waaw góor yaa nga yow kay amu dëgg ni ko noon nga ñëwee gi léegi tumaal yaa ko def mu ne ko dee yow kay yaa waxu dëgg ni ko noon kay li nit ñi de giñee mu doy la ma giñee ko loolu lañ nekk dégg wa mahajjatu taraati yoonu gërëmante tayaaru de njëgës mel ni daal seen diggante ak rek wal mu te gune gi nag fiir dem ne bii ci biir li muy bañ yëppam yaxlubu mu ngi wuru xalbal waali xolab waali ji bi talaw bii mel xatam gune gi nag ci biir li muy wax gi yëpp moom la xaadi ji ne jàkk rek xelam yëpp daal ci xelam xaadi ji yëpp ci taaru gune gi nekk wuyu meewoo mu ngi koy xemem loo fi ay yulabbihi ci bu mu xëy jihaat ko moom daal pexeem daal gune gi de guneem la ilaa an raana ba muur xawaahu sopp gune gi ala qalbi ci xelam ba dem na fi mu ne xel mi fàttaloo na ko kim do fàttaloo na ko service sama lépp te daal pexe moom jotee ci gune gi wala ba te mu sax bi lubbi yi ci xelam ba sawwala rafetal la woo ñaal ko alwaj di njàqare alladi gi nga xam ne tayyamoo jublu na ko wa tamoo ak xemem alladi gi nga xam ne tawahamoo demle wu na ko ay yu xallisa ba mu xetle ak alxulaama gune gi wa yastaxlisa wa te mu jagoo ko waaye yunqidoo ak mu xetle ko min hibalati cheikh ci fiiti góor gi su ma yaxtalisa wa topp mu rëbb ko kon ñu jàng loolu su ko defee bëgg-bëggam boobu nag tax fi mu ne leen rek mooy xalaatam nan laa def ba génne gune gi ci loxoy góor gi dal daal xelam yëpp daal mooy seet num jagoo xee gune gi daal ci bi nga xamee ne gune gi nee na du giñ fa qaala mu wax li sayxi mu wax góor gi ne ko xallaka ndax ñeexal na la fii maa ci lu xam ne huwa moom alyaqu moo gën a xell bil aqwa ci lu gën a dëgër wa aqrabu te moo gën a jegeñ li taqwa jëm ci ragal yàlla góor gi ne xaadi ji ko góor gi comme yow teewoo loolu doy kii itam defut lu ko setal dangeen war a def sulhu rek am nu ngeen xeewalee waxtaan wi yaakaar naa moo di gën fa qaala gune gi nee ko hmm. góor gi nee ko hmm. ilaa ma jëm ci lan tusiiru ngay junju hmm. li axtafiyahu ngir naa ko topp wala xifate duma taxaw la kenn yàlla fii ci moom léegi li nga wax ni pësin la bëgguma wuuteeg yow waaye mënu ma laa topp te xam nga li nga wax li nga may junj nii lu mu du ma taxaw la kañ yàlla bii ci moom fa qaala xaadi ji ko ara dama gis dama xilaat daal an tuqsira ba nga gàttali lowaat mooy ba nga fegwaat xanil xiili ci nees na wal xaali ak nana dama bëgg cooli moom nga dakkal ko xemale ko suñu wasax to sera xëy nga gàttañ lu minu ci gune gi ala mi ati misqaalin ci téeméeri misqaal ñu seet luñ la làmbaay kem téeméeri misqaal ci xaalis wala ci wut kem téeméeri misqaal li atahammala ngir naa xenu min haa ci moom baadan leen na xam ne ci loo xam ne man maa ko joxe waaye tabiya ak ma bijji albaaqiya li def lakka ñaxal la ardan mbir moom muy marchandise su ko li ci des wala ardan mbir ci anam gum mën a lu ci nekk wax la xam na loo daala ko indil muy xaalis xam na ci loo xam ne marchandise daala ko indil dina bu baax a baax saraykat bi marchandise la ko fi saraykat bi fa xaaral dal di wax aseexu góor góor gi ne ko maa min nii tukkeewul ci man xilafun wuutee balaa yëkkoon bu nekk limaa di ka ñaar ko dëgal ci xalaa fu noot góor gi ne ko d'accord naa ci li wax duma ku lay mooy waaye yooyu nag na nga sàmm sa kàddu bul tax sama yaakaar fa naqadahoo dal de ko teewalal alwaali waali ji insri na ñaar fukki misqaal waali ji dal de génne ci alalam kam ñaar fukki misqaal jox ko góor wa wasaxa te mu séddale moom waali ji xanaa wasaxaati yi ca mbooloo tag mi la tax xam si ne lu mottali juróom fukk ñi nga xam ne ñooy ñi ko wër sës ci moom kenn ku nekk mu la xamal loo génne ba ñoom ñi génne fanweeri misqaal juróom fukki misqaal yi mag waraqa dal di yooree sawbul asili malaanam ngoon ba mu ko defee jant bi so wan qataa dal di dagg li ajlihi ngir malaanam ngoon sabu taxsil yoonu xamal su fekkee lijjanti bi liggéey bi lahan na te wàcc jot na lijjanti bi yi taxaw mooy jot te lijjanti bi liggéey bi lahan wan xataa dal di dagg li ajlihi ngir malaanam ngoon sabu taxsili wàllu xamal wala yoonu xamal fa qaala dal di wax qaadi la woo ñaal góor gi génn na ñaar fukki misqaal dajale na ci nit ñi fanweeri misqaal muy juróom fukki misqaal jant bi so jot xaari ko xus jàppal maa li nga xam ne raaja teew na da ngay jàpp ci li fi ne wadante na nga bàyyi xan nuur te nga bañ a dëgër bopp jàpp ne loo ngëm doo ko baax jàppal ci fi ne ci ëllëg an atawassala ba ma jottale ko xaat ilaa yéen da jëm bu teewat la ka ñaal albaqi li def waaye taxasal te mu am bu ëllëgee jàmm suñ xëy see la ko fa dalee balaa ngoon kem li def ci liñ waxante daana la ko toppatoo fa qaala dal di wax asayxu góor gi góor gi ko ah aqbalu danaa ko nangu min ka ci yow li ma wax nii te mooy kem li ma joxaale nii man naa koo jël ala an ulazimahu ci sart bu ma tëqoo ak gune gi laylati ci suma guddi gi wa yarahu te sàmm ko insaanu muxlati sama nagu bët danaa nangu ci sartaam nag gune gi ci suma loxo lay ne waaw ah, ma bàyyi xel di ko garde parce que ma def bu ma fi rëccee damay fàtt xataa isa enfa bu matalee bant ispaari subi ci gannaaw set ak suba bi maa ci li nga xam ne baqiya des na mu mais mali soli ci xalali jubóo ji suñ demee ba liñ koo ni mu matal ko taxallasa dal di mucc sell xaibatun xot min ko bin ci cuuj xam nga nen bi fekk tojagut lu xew ci cuuj bi rek moom lañ ciy tudd waaye bu tojee nag ba cuuj dem yoonam moom dafay seet wecc ci cuuj bi lu ci xewati moom duñ ko ci dullati mukk duñ mukk mukk mu ne kii su ma joxee li des ni nga gis xottu da ko setee ci cuuju ganaar salo nun la setee ci man xaay boobu mooy xott seen mu baax taxal la sa daldi mucc xaay ba doon xottu nen min ko bin ci cuuj wa bëri àtte mu dañ baraata siibi kem dañeg tilla min damim ni yaquba ci dereti doomu yaquba yi dana sedde mel ni na tilla nga dafa ànd bokkam ñu sàkkal ko pexe xam fuñ ko dugal dal di ko rab fekk futti mbubbam aray rab wa tëqal ko deret ba mbubbam yoosuf ba deret ba mbuum ma tëq lool ñu indi seen mbay buum Yuusufa ma ak jooy ya la ko lekk wala gaynde ko rey góor ga nag gis na mbuum ma mu tëq deret waaye xam ne till amul xarala gu toll ni fàdd nit ba dee ko rey te xottiwul mbubbam mun benn rab xarala nit ku sol mbubb rab fàdd ko ba dee ko rey delloo bu baax a baax ba de ko lekk te xotti wun bu ko delloo bu baax a mag nee xota naa xanaa ma ne ah da ngeen def seen yëf rek muñ laa jox am da ngeen def seen rek waaye dem nañ dem dem ba ca kanam ah xam nañ ne rek yëf yi moom ndeke til du jëwoon dara ba yow su feeñaatee ndeke til la bañ ko tuumaal ma rek fa qaala dal de wax la woo ñaal ko alwaali waali ji ne ko maa araaka gisuma la sumta nga toggoo satatan jéggi dayoo satatan lu sori wala rumta sàkkuuloo it faratan jéggi dayoo xaadi ñu ne ko waaw loolu moom du jëfee jubóot ndax gannaaw dafa am loo koy topp wàccoo man ngaa wane ci suma la wala nekk maa araaka gisuma la sumta nga togge satatan lu sori wala rumta sàkkuuloo itam farataan jéggi dayo gisuma daal ak jëfee jiboo qaala al haaris ibnu hammam haaris ibnu hammam nee na falamma raaytu ba ma gisee hujaja sayxi layi góor gi kal hujaji mu mel naka ay lay asuray ji yette yay ko jug ibnu suray ji kenn la ci borom xam-xam yi masabu safin yi dafa am masala yu siiw ci fase sarakat bii dana ko andi waaye dafay xajatul moo tax bi loolu xamee xalimtu xam naa ne am na woo naka moom alamu soroji yeti mooy sangam mbooloom soroji bu ma gisee lay laa xam ne kii mooy borom xam-xamu gaa yi soroji alamu soroji yeti mooy sangam mbooloom soroji mbooloom soroji fa la bistu ma dal de sax ma toog fi ma toog ilaan saharat ba penk nu joomu dalami guddi gi leen mu ne bi nit ñee dem man dama toog rek maa ngi moom ba ba guddi ba biddi wi génn wan tasaara te fecceeku mooy tasaaroo ma xóodu si haa pas basi rek lay doy xam ne bi féex na nit ñi dem nañ su topp ma jublu fi naa alwaali dingiree waali ba mu ko dee ma jëmale at barabu waali ji nangu maa dem sama kër dama nekk di yàlla ba jant bi so ba nit ñi tasaaroo ma dem seetu waali ji fa isaa ci mbetteel asayxu góor gi aji wattu la lil fataa gune gi ma gis aboo seydin mu ngi toog góor gaa ngi toog teg bët gune gi rek fa nasatuhu laaj ko ci yàlla ma ne ko waxal ma te nga seet te nga wax te nga seet sa digganteeg yàlla ahuwa ndax moom abu seydin abu seydin la ma ko ndax fa de abu seydin fa qaala mu ne ii waaw waaw wa mu hilli saydi giñ naa ko ci aji daga rab mu ne man la de abu seydin la de ii moom naa am ñoo bokk waaye fu ma gis jëfandikoo ko dañ ciy teg ngiñ moom ah jëfandikoo ko ci loolu ngiñ man du ko gis ñaare fa qultu ma ne ko Abu Zayd ne ma ne ko Haris ne ma ne ko man ana kan haadal xulaam mooy gële gune alladi gi nga xam ne hafa téy na mooy tarxees na lawoo ngir moom alahla mu xel gune gi nga xam ne taaram bi moo gëlam loo xeli nit ñi ma kumda fa qaala mu ne gune gi dee fi nasabi ci farq yi sama cuuj la mu ne kii de sama ndoom la maa ko jur waaye fil muktasab bi yi sama fiit la waaye dama ci la nee plan nag dama ci bëgg la nee plan ne fa qultu ma ko fa halak tafayta tere ta nga doyloo bi mahasini fitratihi ci taari wa kafayta te nga fegal alwaaliya waali ji aliftitaana fitna woo bi turrati ci korooram maa ngi yow bu la doom ju rafet ji te rek nga ittewoo mu mucc mu baax bañ ko def muy naxee kay sakkar di ci naxee kilifa da naxee ci fa qaala mu ne ma lawlam tubris bu génne wu doon jabhatuhoo jëxam ak siin a siin ni bindee siin dafa niroog nii koror ak bopp xam nga mbindin dafa bëri façon bu jëxam bi génne wu doon siin la ma xam fas duma dajale alxamsina juróom fukki dinaar yi mu ne xam nga bu fekkoon du jëmmum ju rafet ji génn li ma jot a téye ci xaalis bi nii du ma ko jox ma xaala topp mu ma bit nanga fanaan a laylata guddik tey gii hendi fi man Abu Seydin ne ma tey nag dama bëgg nga fanaanal ma li nu fi a ngir nañu fay naaral jawa safaraaw njàqare ndax daal wax dëgg daal géjee bi na wanu dii la ak ñu moomeel alhawa cofeel minan na waa ci sori su ko defee na mante ku xam wanu dii la ak ñu moomeel alhawa banneex minan na waa ci sori faqat añ maatu dogu naa xalaa ansal la ci bu ma yollee ko xaat bi suuratin ci njël man kat damay bëgg damay yollee ko dama teel dem balaa tànk yi doggee ma dem maanaam bu tànk doggee balaa tànk tinkee ko dama bëgg a dem wóorlu ak ma jaaral xalbal waali xolab waali ji naara xasratin safaraaw méttilu waali ji dama ko bëgg a lu ko naqadi loo xam ne ko doy métti teg qaala xaaris nee na fa qadaytu ma jeexal a laylata guddi gi maawo ànd ak abu seydin fi samarin ci ngoonaat anaqa bu gën a rafet min xadiqati saharin ci toolu dër bu am ay ay fleur ay tóortóor wa xamilatu sajarin ak tëkk-tëkkalab garab xamila muy susu nangu garab ma jeexal guddi gaag moom ci waxtaan wu xam ne moo gën a rafet tollu dër bu nekk ci digg naata ak moo gën a rafet itam surtout bu nekk ci digg naatam xataa isa la la a mel xatee aluf xa ci gox yi sana bu sirhaani fajrul kaasi jamonoy sita lay xam ak leer lay doon ko xam ne du yaatu waaye day xotti nii rek nag te leer gi ci guddi la moo ne fajrul kaasi mu ne bañ xàggee foofa wa aana te jot imbilajul fajri xaru fajar waxaana te mu jot nga xam ne ñu naan fajar a ngi xar si sab ganaar jot na bi li xamee rek war na mat na tarixi gannaaw ak yoon boobu la tegee ci yoon waa daaqa mu mosal al waali waali ji asaabal xariqi mbugalam lakk bu ko defee def waali ji musiba wasallamu mu jébbal ilayee jëm jëm ci man saaxatal firaaqi ca jamonoy tàggalooga ruqaatan morsu këyit muhkamatal ilsaaq ba de bu ñu xereñee tëqala ba ñoo tàggaloo mu jox ma benn boo xam ne ñu ko kol ba mu dëgër wa qaala mu ne ma idfaha jañ ko ilal waali jëm ci waali yi isa suliba bu rekkeesee alqaraaru sax wa taxaqaqate mu dëggal min naa ci nun alfiraara daw loolu lan la xam dafa am lu ñuy guddi hmm? dama bëgg a daan waaw bu fekkee dafa jël bant jàkkaar bi daan xëy loolu lay xalaat mu ne idée ba xaa jañ ko ilal waali jëm ci waali ji isa suliba bu rekkeesee alxaraaru sax wa taxaqaqate mu dëggal mi naa ci noonu alfiraara daw su ma demee ba nga ne raw ma demee ba xam ne raw na joxal ma xaadi yi leetal xaar ne fa fadattuha ma dal ko dajji ma dajji leetal bi duut bañ kumpa sekk rew waaye loo wóorul moom wóorul rek nit ku wóorul moom wóorul rek ku wóorul moom wóorul rek waaw ah. fi'lan mutamallisi mu de jëfi aji wattandeku min misli sahifatil mutalammisi ci kam sahifatul mutalammis leetarab mutalammis mutalammis kenn la ci suaraul jahiliya moom ak tarafatul abdi ñoo jamono ante tarafa jarbaatam la dafa am buur bu ñuy wax Amrum nu Hindin ñoom ñaar ñoo jamono hante ñoom ñu ñu la jamono hante Karafa nag nekk ndaw tey saañal de xas buur bi ak wasiir bi dégg nga baax a wasiir bi bokk na ci lim ko xas lim ko xasee mu ne dafa ñàkk xorom bu la joxee wet gu sew bi bi nga ne matul kilifa ko xasee na ci li mu ko xasee loolu loolu nag tasaaroo na ba buur bi déggu ko buur bi nag da bokk na ca mu ko xasee mooy kii nim ñàkk leen njëriñ raxe yéem yi su ñu amoon ab sikkatal ko ci pale bi muy mel ñu dégg ko sax ko pale muy nim ñàkkee daal loo ko xam ne exécuteur bay xew ko fii sax de mu dee même nit ñi de ko dégg mm-hmm. moo ëpp njëriñ ñu bi de <laughs> loolu nag kenn ñu ko am buur bi kenn kenn kenn mm-hmm. fa lay dala naa makkaanal malki amul malki amrun mm-hmm. raxoosan xawla qubbatinaa taxooru la amru ka inna qaaboosa bna hindin la yaxliku mulkahu nawkun kasiiru ne nañ buur bi de waaye yëf yu dox rek yëf yu buur yi nag dañ daan rëbbi benn bis na xamru nag ànd ak wasiir bi ñuy rëbbi ba mu ko dee wasiir bi yiréem xam lu naaw xam lu gis wet gi waaw wasiir bi nag yàlla lu taraf wax dëgg la wasiir bi nag taraf la taraf waxul ci man kenn dara de mu ne ko wax na ma dara mu ne ko ah nañ ko bàyyi far ñëmu ne bu su fekkee wax na la dara dëgg ma koy wax wala ba ma ko waxul fii ngay xem wasin bi nettali ko li ko tara ko mu ne da koo bëgg rek waaye tarafa nag jabaat mutala nit la su fekkee rey na tarafa mutala nit dana yàq deram du ko jaral boole leen rek daf leen nax dafa bind leetar ñaari leetar leetar bu ne mu ne ca kii leetar bi su ñëwee na ko salaf dagg tànk loxo yi leetar bu ne mu kaste ko dagg leen ko ñoom ñaar ci ne mu jox la leetar yow ni bala ñu àgg hiira ñu gis genn góor boo xam ne bu yéeme yéeme la góor gi daal di tumaranke la boole ndax dañ ko fekk mu ngi jom kon de de dem du de génn tànk de lekk ah, mburu de teeñ di benn jamono yooyu la boole ah góor gi dox na dox na mu ne leen man damaa rey sama noon de génne sama lor leen waxee loolu nag mu dëllam ñu xel bi jóori moom moo pare mag mu ne ko tarafe li est-ce que mu ne baax nañ dem rek ñu dem ba kanam ñu jot benn xale ñu dajee benn xale lay ko mën nga jàng ngir ne waaw mu dëllam ñu ne ko nañ jàng lu suñu rek mu ne ko ah jël jàng man damay dem léegi nag mu dëllam ñu jox leetar bi xale bi xale bi ba jàngee lettre bi wax li ci nekk mu jël lettre bi sànni ko ci géej gi daw dem dëkk daw daw sori sori sori na mu wut àgg tarafa moom bi àggee benn dañ ko rey wala dañ ko jéggal ay wax bëri mooy jaar mooy nag Abu Seydin gannaaw nit ku wóor di la tooñ yim tooñ tooñ xaalis ji nii mën na koo booleeg man loolu daal di wóor mën na koo booleeg man wala boole bu foog man waaye wax na ko loo xam ne su fekkee man maa tax mu jot lu ne mën na ma jàpp moo tax min misli sayyifatil mutalammis fa isaa ci mbetteel fiihaa nekk na ca maktubun lu ñuy bind la ma fekk ñu bind ci mooy lii mu ne xul waxal li waalin ñaar waali joo xam ne xadartuhu bàyyi naa ko baada bay nii ci gannaaw sama sori saa di man mu da aji réccu naa di man da aji réccu yaa abdu mbirom dana mu matt alyadayni ñaari loxo waa di ji ma bàyyi ak xol bu tàng muy matt loxo na ko sala bari ki na aseexu góor gi maalahu alala na ko góor gi yóbbu alala wa fataahu rékki na gune gi lubbawoo xelam xale bi tàggale na ko sago fa ci sababu loolu istala jaaroona la daa xasra tey ñaari métti moo tax ñaari métti dal na ko ñàkk sagoom ñàkk xalalam te li ko taxoon te ñàkk sagoom ñàkk xalal jaada tabeena bil ayni ci kaye xiina ama waxtu wa gumboolee xawaahu cofeelam ayna hoo bëtam dafa bëgg lëggéey loo wut xelam dal di joxe xalalam ci a jaada tabeena bil ayni ci ama waxtu wu gumbalooyee hawaahu bëgg-bëggam hmm. ay na woo bëtam hmm. fansanaa mu wëññeeku bilaa ay ne ni ci ñaari ay ñàkk na alalam ñàkk hmm. jëriñu ci xelam xafit na nga suubeel alxus na njàqare yow mu ànd naa yow ku ñu solla sonnal yow waa lii ji nag soo yeboo nga dalale ah xafit na nga suubeel alxus na njàqare yow mu ànd naa yow ku ñu fama yu ji du jëriñ dara tilaabul asaare sàkku ay jeexi même ba de xay nañ ci gannaaw jëm a jaan dem nga de dóor diisu noonu de tële indi gaaw ba baabu ah mu ngi boobu ci kenn nga da koy day kone bala dem ba wéy nga de dóor diisu wala in jàll bu màggee maa li nga xam ne xaraaka gaar na mu la kamaa jàll ni ki màggee la dal muslimiina fa julit ñi ul xusayni musibaaw xusaynu xusaynu mooy doom aliyu na abi taalib bu ñaareel ak fatimatu zahra nekk satab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bañoon ne du jaayante gi Siid ibnu Muawiya baloo ci lañ ko fexee lay yóbbu ko Hira rey ko foofu ci Karbala mu nekk lu tiis a tiis a tiis lu xam ne xaj na kum neex daal bu ko du ma siwu dajal soo ko ni dana ma neex dinañ ko baaxaa mën naa am samron si moo ko rey mën naa am moo ko rey waaye nag jamono ko bëggoon a rey sax ci ñoom waaye hmm. kenn ci jigéen ñi moo góor ci kawam dina hmm. bu baax a baax hmm. léegi moom Ousseynou moom a ñu defoon loolu jabootam tamit ñu rey leen ba mu des tuub boo dem ci àddina bi dafa fekk ay surafa yoo xam ne ci moom lañ bokk yéen ma nga xam ne moom lañ doon lëggéeyal amoon na ñaar fukki doom ay kenn ko لست منا فليس خالك منا يا مضيع الصلاة للشهوات أضع الصلاة واتبع الشهوات xam na day tëdde xam na day tëdde xaaral day tëdde mu ne li la daal su méttee itam fa xadin sarta wattee nga melu ñoom fa mën dégg wax ak man ak takku jëlee nga ci bind wala biibu te aji xelu al aribu ku de aji xelu yëpp xii musal ku seeni ñaar te nit lu jox bind ba xee muy moyu nun duur rek loolu xamal na ko njëriñ fansi na nga mooy min baadiha ci gannaaw lii almatami a xemem téi lu bakkan xemem rek nga xenu ca loola loolu bu ko nangu déggoo ko rek sa masuliya te it nag du ku ne nga mën a jot ci moom waalam xamal ne an na sayda riba yi nag rëbb koj biir day sër bi ay nin dul ay dem leen ngeen julli man dama jàng pare ma nag rëbb koj biir lay sër bi ay nin dul du yow laa dirit wala kullu tayrin di bépp njanaaw yëli jude dugg alfaqa fii dut njanaaw lu ne mën nay dugg fii fii dut ne rab wu ne mën nga ci ko dul ne parent am naxe man nga cee jël ku ne déedéet walaw kaana doonte nekk na mu daqan de lu ñu peegee bi lu ci xaalis ak nag lum xemem lu xemem lu plan daal moom nit a ko defar nit nag man da boole man ci nit ñi ñëpp dara loolu moo tax nag fokk dina am borom ku mën a lu dara kam man saxaa bëri na kuy dox li yastaale ngir na rëbbu parce que dara des ko baax xanaa xam ni ci lu yomb nga bëggoon waaye da nga lekk sa yow te doo jëlee dara nga ñuy jëlee parce que dara des ko baax walam yalqa du mu dajeet xayra fu fay hunaynin lu mooy ñaari tangi hunaynu mooy dafa dafa mooy madrabul masala ci perte rajaa ga xaf ga xuppay Hunaynin mooy tartana ñu ne Hunaynu ak nit la woon boo xam ne da daan deferi fan benn arab bi yow war gële moom dem ca dëkk pay ba ba mu demee yàlla def mujj Hunaynu mu ngi amee ay sang sang yi baaxal moom lool waxanteeg moom pour jënd ko kon nañu wax ko prix bu cher cher bu jéggi dayo mu bañ dugub fekk arab yi sax xam na bu nañu ko muy ñibbee maanaam bu nañu xam na bu arab yi la ñibbee mu jiitu ko dem ba sori mm. wacc benn sang bi ci yoon mm. demaat ah, ba ha mu njëkk di leen ñu naa sama waroon jànd ci wane waaye yàlla na sax ñu dëgg ko dëgg demaat ba ca kanam mu gis weneen bi lam faguloon wala mitti ko lool mu wàcc gërëm gi ne dafay jëli ji ba mu demee jëli wala balay di ko fekk mu ne mu war gërëm dal balaa jëli na moom mu ñibbee loxo yi dem naan atay lu ko fay mu ne nii ñu dal ko muy teru fa tabassam na ngay séen te bul de séen kulla barxin jëpp melax rubba barxin bëri na melax boo xam ne fii nekk na ja sawaaya ku hay nin ay mën yi dee mën yi rey bul yaakaar ne rek lu xel lu xeme mu rek ak lu sotti la melax bu ne rek fa lay tawal demee mu ne melax bu ne rek fa lay jig wax gu te na ngay gëm ak tarfa bi gis soo ko defee tëstarix da nga noppul min xaramin ci lëkkatu xol bu xam ne tegtes yi da nga xoddoo fii ci moom soo ko dullin balaaram toroxaande so sëñ bi daan ñaaw fa balaul fata musiba waay ittibaaw hawa nafsi mooy topp bànneexu bakkan wa badrul hawa jihu bànneex te moomu ay ni mooy yëkkate ku gis nit su fekkee ittibaaxul hawa mooy biram man da mucc nit su man da yemale bëtam du mën a ba ittibaaxul hawa xam nga jël na yëppam wax ko wax yi te muy borom doole te ku ne xam ne jubut qaala wax a an raabi haar ne fa masaqtu ma xotti ruqante wa masul te itam sadara masar par moso ma ne lii bu mu ko jàngee faa ko xotti par moso par moso lii lu mu ko jëfal faale bu ma aadala ndax daf ma ci yedd naan kii moo ragal comme defut am adala wala daf ma ci ngantal ne ah wax na dëgg na lim jox gën a baax na ko gën a incha